Serigne da nga nekk maire bu kaw Kaolack ci deux mille vingt deux bii adversaire ya nga am yu nekk Benno Bokk Yaakaar ñu am leurs entrées au palais de la République maa ngi lay laaj ba tey sa diggante ak sa gise ak Macky Sall lan la changé yaa ak Macky la dama leen di gis ci ay fora économique euh, les rapports passent très bien sa prise de parole sax président day reetaan euh, daf koy neex gars yi ils ont réussi à semer la zizanie entre yow ak Macky Sall pire encore ils ont réussi à faire croire que yow vous êtes un souteneur de Ousmane Sonko ba ñuy ba ñu ba nga recevoir Ousmane Sonko ci 30 ans chambre de commerce ñoom un ñëwuñu dañ boy boycotté mbir mi mais ba nga recevoir chaque jour dañuy jël ay renseignements yóbbu xam nga tamit yaag Macky Sall gise ngeen bu peut-être que waxtaan ngeen mais sëriñ euh, mun na nekk une entente précaire moo tax da nga war a wax ak sénégalais yi. waaw mais may ma wax leen li ci ne may ma xam nga man nit ki bu la nee lii ngay wax du problème ci man mën na nekk dëgg mais man du problème ci man loolu rek laa la mën a wax yëglu ma ko sama yaram Ousmane Sonko recevoir ma ko Kaolack dama def sama 30 ans CCBM invité ñëpp mais bul wax ne. encore que recevoir Ousmane Sonko du délit tu en as le ma wax la déglu ma wax la recevoir ma ko Kaolack mais màggat dama def sama 30 ans CCBM. ma dem sama 30 ans euh, invité ñëpp invité nañ ñëpp. mais ñoom ñëwuñu. ma xaaral déedéet ñëw nañ bul wax ne xaaral ma la. Mohamed Boun Abdallah Dionne ñëw na. non waa d' accord. Boun Abdallah waa d' accord il peut il peut revenir. mais il n' est plus dans le système. waa d' accord xaaral ma wax la. Pape Demba ñëw na. ok d' accord oui Pape Demba Biteye amu leen problème et puis Biteye c' est un homme waa d' Euh, kii kii Ndeye Sall ñëw na. oh Ndeye il est à la il est il est pas da da il est pas au centre des opérations politiques de Benno. ministre de commerce lañ lañ waxoon ne moo war a ñëw mu ne ma dafa tukki waaye rectifié na ko ca 15 jours après ñëw na kaw la. Abdou Karim Fofana ndawal Macky Sall la. waaye ñëw na kaw politiquement il est au cœur des. des au cœur des manœuvres politiques xam nga li metti ci débat mooy li ngay wax lépp sama yoon def ci nekkul. xam man danga naan ma yaa def lii waaye Macky Sall lii la def lii la waa Macky Sall def lii la def man sama yoon def ci. waaw man ñoom bu ñu ma jëlee adversaire te man maa ngi. ma xoolal bu ñu ma jëlee adversaire. xaaral xaaral xaaral xam nga fan la wax yëpp fan doon amee sens avant may dem élection sëriñ bu dem élection gars yi dañ la kase dañ la def lii dañ la def lii boobaa lay metti waaye fi mu ne may maire nag. sëriñ yaay maire ah. mais problème yi amul jafe-jafe ci sa wàllu liggéey. amul amul gisuma ko. na am mën na am kay ma wax la xam nga sama wàllu liggéey moom ñaar rek ma waroon am marché état amatu ko ba ma duggee ci maire yi la kase sama diggante laa ne je ne soumissionne plus sur le marché de l' état kooku mën naa ko décider sans sëriñ da nga non xaaral su fekkoon tey nag damaa nekk di xëccooy marché. ñu demee waroon fay mën nga wax ne am nga problème. c'est vrai que entre temps tamit j'ai eu un contrôle fiscal. bu ñaata. non bu ñaata kay jëru ko mën na ko am naa contrôle fiscal rek. mais am am naa contrôle et un redressement fiscal mais pareeguñ mais man dama ko tuddee lu normal gisaguma lu teel di sama xel. gisaguma ko parce que contrôle fiscal pareegul da ngeen am ay échanges. su demee xam nga luy problème. dégg ah, mais man dama la wax ne gis nga tey xam nga gën su ma amoon problème àdduna ak li ci biir duma ko yëgal sama yaram parce que dama naan tous les problèmes se règlent y a pas de mais nit ki la noonu xam nga gis nga dafa am ñaar ci àdduna ki la noonu xolam di baax bu la gisee kooku moo moo hmm. man yëguma ne am nañ problème ak man man yëguma ko xëy na yow am na foo déggee waaye man bi ma toogee président am na ñaar yu ma wax mais dama ne ko quel intérêt man quel intérêt pour financer un opposant quel intérêt xanaa kay dama ne su may financer kay état laay financer ndax ma am retour d'investissement ma am man ma mën a gis président Macky Sall ma mën a toog ak moom mu may ma toute liberté toute liberté laa wax de toute loolu dama ko ak moom bi ma toogee sax mën naa la wax baat yi ma ko mais président man danga maa may liberté ma wax li ma bëgg mën a maye Euh, ga euh, ma ne ko gars yi sax dañuy wax ne la da ngaa mën a ñaangal mu ne ah man mënumaa ñaangal ma ne ko loolu la gars yi di wax waaye man gisuma ko man damay wax ne gisuma ko ak moom yow xam nga ne suñ toogee damay damay damay waxtaan loolu nag dañ ko seqoon eh, man noonu laa man ak Wade sax noonu laa mel ak moom du ma du ma enfoncé benn kilifa mais su ma toogee damay am liberté gis nga dama lay wax xam nga loolu ku ñu ko jàngal ki ñu doon jàngal alxuraan sëñ Ahmad Saxiir Lo dafa nekk daara di ko yoon ñu ne ko état dañ lay xeex dañ lay def nii dañ loolu yàgg nañ ko ko wax mais toujours dafa gëm ma jox la benn exemple benn jour Abdou Diouf dafa ñëw Abdou Diouf dafa ñëw ñu ne Abdou jouf dina ñëw ci daara ji boobu maa ngi toog nii ci suuf man wax naa ko Abdou Diouf ñu toog ba mu yàgg ñu dikkaat ne ko Abdou Diouf nee na du bu na ñëw léegi da ngay ñëw mu recevoir la yàgg délégation trois personnes mu ne man mu ne am ah, mu ne man doyuma Abdou Diouf dara de man damaa nekk fi di jàngale alxuraan te jamono boobu laa wax xoolal léegi sëriñu alxuraan bu bind na leen kaay leen wuyu président mu ne man damay jàngale alxuraan yàllaa ma yor damaa bëggoon ab Abdou Diouf ñëw fi xale yi ñaanal ko ndax yàlla defal ko sutura waaye bu fekkee dafa am xat-xat na dem danañ ko ñaanal mais dañ ko wax Abdou Diouf mu ñëw mu bàyyi li muy def ne kii danaa ko seet si ñëw pour ma wax la ne ñun liberté boobu dañ ko am dañ daf ñu koo yare duñ kenn mais ragaluñ kenn li ñu alxuraan wax allazina xaala lahumu naas inna naas xad jamoo lakum faxshahum fa zaadoo imaanan wa xaalu hasbunallah wa nimal wakil loolu laay dugg ma firil la ko mooy li nga may wax ki nga xam ne nit ñi dañoo dañ la wax ne day yow tiital nit ñaa ngi dajaloo ñu ngi lay fexeel ragal dawal comme li nga may wax exactement mu dolli ko gëm fa zaadoo imaanan du noonu nga ne waxaalu hasbunallah wa nimal wakil fan qalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsas suwoon yàlla nee na loolu dara du la ci dal yàlla da lay jox xéewal ci loolu gis nga doomu aadama bala ngaa am problème nga ne woy nit Macky Sall nit diw ma tiit jamais de la vie duma ci tiit aw ma ci soxla xam nga lan laa am lépp loo xam ne nii war na ma ci diggante Kaolack ci ci respecté ko danaa ko def pour que nekkuma fa pour les employés dama fa nekk pour la population y compris les employés ña nga fa. mais bi o sorti de ton audience ak Macky Sall ban résolution nga jël gannaaw ba ngeen waxtaanee. mais président xanaa lool moo tax nangootuloo wax waxu waa benn musuma toog fii wax la ci Macky Sall. non non waxu waa benn musuma toog fii tamit nee na diw léeg laaj laay dénoncer ay agissement yoo xam ne nii ah, mën naa ko tudd mën jaara xam moo ko def te loolu du man rek ma ngi ko seq ak Pape Demba bi tey ma ko seq ak Mariama Sarr ma ko seq ak ñëpp xëy na peut-être méthode am la mais du man peut-être naa am tey bu ma waxoon su ma ne benn bokk yaakaar laa bokk sax danaa ko séq ak moom parce que ci biir benn bokk yaakaar ci la combat bi gën a bare yoo xanaa ko moom may mun a tey sant yàlla bi yàlla ma may ba ma bañ a nekk ne damay dëkk benn bokk yaakaar parce que je pouvais avoir tout ma dugg ci parce que tout le monde pensait que xam nga am ñoom bi ma ne damaa bëgg maire yi eh, sëriñ day bëggul maire dégg naa ko xam nga loolu dëggul maire yi dafa bëgg a bàyyi ba bis ba mu woote marchande li muy am mais testé nañ ko. ba ma tegeetal woon nañ ma pour bëgg ma bàyyi mais président laa dama ko xam bi ma toogee expliqué ko samay samay kii mais daf ci ànd ak man billaahi daf ma ne d' na naa. Mhm. xëy na bi ngay doog di ñëw du ci d' accord mais bi ma ko expliqué sama méthode li tax ma di ko def dana ma d' accord naa. Mhm, léegi bi loolu paree xaaral ñu pare ñu ne waaw léegi gañe na laa ilaaha illallaah buy suba muy dem lii rek la doon wut bu subaa mu dem mu nekk nekkuma ko parce que man yàlla teral na ma ah man. su ma nekkoon président du Sénégal sax sama kër gee yàlla yàllaa ma ko defal de pale dàq ko mënuma lekk lu ëpp lool mënuma dugg oto ba ëpp lool qu'est-ce que j'aurais encore de plus kon sama liberté moo ma gënal lu ne waaye nag du tee ku ma war a maslaal maslaal